bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu ala nabiyi ilkarim sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki talibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziara ñoo ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ñaan suñu borom wan nu gudd fan ci jëmmam li mu yéene suñu borom defal ko ci lu kawe njortam barakat Cheikhul Xadim ñoo ngi nuyu mboolem kilifa yi teew ci barab bi ñëpp di ñaanal ñëpp yërmande suñu borom ak njëggalam barkeb Sëriñ ñaanal mboolem mag ñi dëkke woon barab bi te jiitu ji. yàlla na suñu borom yokk seen yërmande ci barsàqul muhammadiya barkeb sëriñ bi di jëkkante ak waxtu wi yëkkati sunu kàddu muy kàddug fàttalante rekk kàddug laayante biir kàddug soññante mu jëm rek ci jataay yu am solo yi nga xam ne noo koy amal ngir dundale ko sunu bokk noo koy amale itam ngir sàmme ko ndono yi ñu mag ñi bàyyee muy jataay yu am solo yu mat a bàyyi xel yoo xamante ni ni jamono soxla na ko rawatina fii jamono toll ndax bokk na ci jataay yi nga xamante ni ni lim mën a dajale kës néew ci ay bokk yeneen jataay yi ci des mayunu ko kon jataay la yoo xamante ne ni war na war nañ koo fonk bu baax a baax te bu jotee kenn ku nekk jéem a bàyyi yitte ñëw ci daje ba jataay yi jàll ñu doyro delluwaat ca yitte kon jataay yu am solo la jataay la it yoo xamante ni nii ñaar rekk moo ci war mooy ñaanal bokk yi dem waxtaane li nu seq ñun ñi fi des ñun ñi fi des nag liñ seq daa bari xajul ci benn jataay waaye mën nañ saa yu ñu dajee jukki ca dara waxtaane ko ba keroog ñu dajewaat waaye ñaanal bokk yi dem moom farata la ci ñun te waxtu wu ci nekk ak jamono ju man di doon rawatina nag mag ñi nga xamante ni ni ñoom lañu suñ borom booleel ñu jaboote ameel nañ leen borom ñaan sunu wéetee am nañ borom di leen waxtaane sunu wettalikoo ndax seenu gent lañ dëkkee ci seen barke la ñuy tedd seenub liggéey la ñuy sagoo kon ameel nañ leen borob waxtaan danaa ko faral di wax ni buntu kër boo fi dem dàll yi bari fa kañuy booxante ci biir néeg ba yoonam nekku ci ña ko lëggéen ci armeel ya tëdd ñoo ñëwee su leen fàtte war nañ leen di fàttaliku waxtu ci nekk lii ñu fi nekk lépp lëggéeyub mag ñi la ak seen njàmbaar ak seen yitte ju kawe ak seen pas-pas sëñ Moussa nag daana wax ni fu lu baax ne ku baax ko fu yóbbu waaye bu fa saxee nag ak defarkat a fa ne mag ñi seen jaan wàcc na li waroon a def lépp def nañ ko li ci des nun la desee ba keroog ñu leen di fekk te mooy sàmmal leen seen ndono ba fañ ko bëggoon a àggale nu yóbbu ko fu gën a kawe foofu loolu nun ñëpp loolu moo war a doon suñ yitte loolu moo war a doon sunu taxawaay su fekkente ne ni bàyyi nañu xel li nu fi bàyyi nun su ko defee nag tomb bu njëkk bi mooy doon ñaan solo si mu am ak yittewoo gi nga xamante ni nii mboolem ña dem danañ ko yittewoo ku leen ñaanal ndax foofa lu baax du fa doy te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu jàngaloon ni nit bu faatoo téereb jëfam tëj nañ ko waaye mënees na ca ubbi nag téere ba dolliwaat ca aw yiw mooy su fi bàyyee doom ju baax ju koy ñaanal walla mu bàyyi fi liggéey boo xamante ni lislaam daf ko soxla di ko jariñoo lu mel ni bënn teen wala jëmbat ak garab wala bind téere bu am njariñ boo xamante ne ni askan wi dañ koy jariñoo yooyu bu ci am dees na ubbiwaat sa téere yiw bindal la ca aw yiw su fekkente ni ni yooyu amul nag ñaar yi sëñ waxoon dana am te sëñ bi daa waxoon ni fële mawu am na fa ak fooyu mawu mbëttum noor koy def mooy bu noor bi tàmbalee lay dàq am lëm mu dugg ca wàllam paxam ba keroog bët di sebbiwaat gunóor di am mu dóor a génn fooyu ku yor lu doyu te koy def te ñaar yooyu yëpp Sëñ Tuubaa nee na dana am ca barsàq te li muy wax lambutuwu ko te lum xam la ndax nee na wa argabul asyaai lil amwaati raddun ila dunia ma alxayaati walaw sooyaatan nee na mboolem ñi tëdd ci biir bàmmeel koo ci faggoon tey laaj ko loo gën a bëgg mun la dellusiwaat àdduna donte as caala du ko du ko xeeb ndax dana ci defal yàlla loo xamante ni su delloo dana ko amal amal njariñ waaye sunu borom moo digge ni ku dem doo delsi kon nun ñi fi des liñ fi dese wur nu ko fooyee war nañoo takk suñ digg bu baax a baax te yokk suñuy jéego wuti yàlla ndax loo am lu dul yàlla loolu pertement la ci yow te mag ñi xàllaloon nañu aw yoon woo xam ne buñ ko wàccut sunu àdduna dana jag sunu àllaaxira dana jag kon bis yi bis yu am solo la ci jàng alxuraan jàng xasida istixfaar salaatu ala nabi jagleel ko mag ña waaye bàyyi xel sunu bopp itam ndax loolu moo taxoon Sëñ Tuubaa doon wax mag ñi ni leen na ngeen wàcc lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci biir bàmmeel yi su ngeen demee ci biir bàmmeel lu ngeen bëgg tëdd da ngeen ko tëdd ab tëraay nga ca kanam da nga tëdd ba tëdd loo bëgg a tëdd mboolem ñi demoon ñëpp ñu ngi tëdd mandat de dépôt rek ci lañ nekk jugement amagut kenn xamagut ci sa bopp dara waaye nag euh, barab yi mën naa mën naa wuute ndax euh, fii ci àdduna rek boo fi doon jël misaal am na ñoo xam ne kaso yi ñu leen tëj moo dàq seen kër waaye am na ñoo xamante ne ni fañ leen denc mar day tali te yooyu yëpp rek dafay wane sañ-sañu suñu borom bi ak aw doxinam ndax ci loola rek lañ ko lañ ko koppee kon bis yi bis yu am njariñ la te ñaan mën naa jële nit ci situation boo xamante ni ni demewut noonu yóbbu ko ci situation bu gën a baax loolu kenn ku nekk ci ñun xam na ko fële itam doon barab boo xamante ni nii dafa mel ni suñ borom daf ko réserver pour boppam ndax barab la boo xamante ni nii ña xam lu bari bariwut ñu néew ñoo ca xam dara te ñi ci ëpp waxloowuñ leen kon ab barab la boo xamante ne nii li ëpp ci liñ ci nettali ginnaaw li ci alxuraan indi xadis sallallahu alayhi wa indi ko li ci des ay gént rek la léeg-léeg nga dégg kon la gént naa gis diw waaye gént dong la mën naa doon réalité mën naa bañ doon réalité waaye rafet njortu ak rafetal sunu yaakaar loolu mooy taxawaayu ab jullit te loolu mooy sunu warugar kon barab la boo xamante ne ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax sëñ boo demee ci silkul jawaahir nee na mbooleem ñi faatu saa yu ñu xëyee kenn ku ci nekk dana woote àdduna junni yoon di sàkku ak ñaan kon danga jàpp ni lépp loo fa xalaat ci sam xel nii mën naa bañ a demee noonu ndegam bët moo lay wan lu du dëgg nag askam ak am xel parce que xel day xalaat rek daanaka mook luy naw ci jaww ji ñooyam amul aw yoon waaye tànk moom bu jógee ci aw yoon la yam te léeg-léeg sa bët sax wan la loo xamante ni du réalité du dëgg waaye da nga naan maa ko gis boo ci doon joxe exemple rek da ngay wax ni jant bi boo téenee gis ko dangay defe ni moo ko palaata tolloo bu ñu la ko yenee nga dem te moo ëpp planète bii nga taxaw weer wi boo téenee gis ko da ngay defee ni mën nga koo jàpp sa loxo dem biddiw yi da ngay jàpp ni mën nga koo ngëpp loolu sa bëta la ko wan waaye du dëkk moo ëpp planète bi nga taxaw ndegam bët moo lay wan lu du dëgg nag askama xelum doomu aadama moo xam ne dafay xalaat rek moo tax faaw ñu delluwaat ci njàngalem sëriñ bi teg ci sunu tànk te jéem ko dund lii nag dafa bokk ci li nga xamante ne ni daf koy màndargaal mooy daje gi ñu daje ci pàkk bi fàttaliku waa ya ak maam ya ñaanal leen yërmande suñu borom waaye fàttali ko wàlle nag seen jikko yu rafet yi ak seen taxawaay bu mat ba ak seen yitte ju kawe ja nga xamante ne ni moom lañ jaare woon ci àdduna ba suñ boroom ñëw akub dogalam kon bis la yoo xamante ne ni lu am solo la dafa am kenn ci nit yàlla yi koo xam dafay nettali ni dañ koo wan barsàq li ma doon wax sànq rek ni li ci ëpp ay ay ay nettali lay doon yoo xam ne dañ naan ay gént lay doon wala jéññeer kooku nee na ñaari jataay lañ ko won ñii dañoo toog tiim ay taabal ne taabal yi yaatuwaay bi mu mënu koo xayma waaye xeetu ñam wu ne nga ca kaw ñeneen ñi ci des ci ak lëndëm lañ nekk waaye lëndëmuk timis la xam na ne ay jëmmi doomu aadama la waaye xamul seen kanam bi mu laajee ñu ni ko ñi toog ci taabal yi seen bokk yañ bàyyi woon àdduna ñoo leen di ñaanal ñaan yooyu ñu leen di ñaanal moom lañ tiim néew di ko xéewlu mu ni ko ñi ci des nag mu ni ko ñooñu de lañ fi indiwoon daa jeex te bokk yi leen fi indi woon dañ leen a fàtte moo tax ñu nekk noonu yi tumuraanke mu ni ko kon lu ñuy dundee mu ni ko xanaa fu jullit ñi ñaanee ba pare ñaanal seeni bokk ni li ci des boole naa ko jullit ñëpp loolu lañ leen di séddale su jeexee ñu toog di xaaraat ba ma ni loolu nag képp koo xam war nga wut ab dog boo xamante ne ni da nga ko jagleel way daw li nga xam ni doo tëdd ci kaw lal mukk te defoo ko yi mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax loo gudd fan gudd fan da nga tëdd lu ko ëpp ci biir bàmmeel te yàlla ju jublu ci say mbir ndax ña woon ba léegi ñu ngi tëdd àjjana ubbeegul ay buntam ba min waraihim mi ila yawmi yub'asuna te loolu lii suñ borom wax mooy dëgg noonu nag dañuy toog di wax di nettali ay xuraafaat yoo xamante ne ni daanaka tegewul fenn léegi la ñuy rob nit nga gis ko waat ni la àjjana lay fanaani léegi ñu rob nit nga gis koo xam danaa la fee mu jëm moo ko dàqal fii mu jóge te yooyu yëpp ay defe la rek ay defe defe la rek waaye dara du ci yàqin waaye li ëpp solo nag mooy néew buñ tëral yow nga xam ni yow yow mii dund boo sañoon doon néew bi tëdd loolu moom la nee na koy mayee te léeg-léeg nag nga ànd ci rob boo xamante ni yow ci sa bopp ñee nga néew bi néew bi tëdd ñee ko ndax dañ ne ab néew bu tëddee la ca xel ya loolu lay dëgg saa yu nit faatoo rek la ca xel ya loolu lay dëgg la ca xel ya nag léeg ñu mënees koo wax léeg-léeg mën a wax waaye la ca xel ya rek loolu loolay dëgg loolu nag mat naa bàyyi xel bu baax a baax ci ñu jéem a takk sunu ndigg góorlu sunu diggante ak sunu borom jéem a góorlu itam nag ci santaane yi te moytandiku bu baax a baax te tere yi kon daje yii nga xamante ni nii mooy am te jublu ci fàttaliku mag ña jublu yi itam dundal sunu bokk gi daje yu am solo la yoo xamante ne ni war nañuy soññ njaboot gi ngir ñu di ko teewe dara àdduna jërut di ko absente ndax dabu ji am koom rek wala tënkal sa bopp ay ngant mooy tee ngay ñëw te yooyu yëpp dara du ci ngànt ndax àdduna moom loo fi mën a am lu mu bari bari bari bari boo nelawee fàtte nga boo dee ñàkk nga kon loolu jërut farata yi nga waroon a dox nga di cawutal sa bopp ay ay ngànt loolu bëggoon naa ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñu gis ni itam ni ñaan importance bi mu am dafa am ci nit yàlla yi loo xam ne léeg xaal da leen di dikkal dañuy jóg rek di dox kooku ne dafa dox ba toll ci armeel mu fanaan fa ca guddi su borom wan ko ñu mboolem ñu ne ci biir barab yi kenn ku ci nekk génn toog ci buntu bàmmeelam nee nag ñaan ñi fi ñu toog mi ngi leer nañ foo toog di jàkkaarloog ñoom waaye ñu ngi tiim dara itam di ci yeb seen loxo di génne waaye nee na am na ci soxna soo xamante ci ak lëndëm la toog ba pare yorul dara nee na ci biir gént gi mu laaj ko mu ni ko man day benn doom bu jigéen laa bàyyi woon àdduna daana ma ñaanal ci ak njëlbeen waaye gëj na maa ñaanal moo ma indi sama tumuraanke gi ba mu xëyee mooy laajte ba xam soxna sa dem ca moom wax ko ni ko daal ba gént gis waajuram wu jigéen ci ak tumuranke neena mu tàmbali koo ñaanal ba ko aaj ji di kalaatee ba mu fanaanaatee ci aramel yi daa gisaat soxna sa di ko sant maanaam bàmmeelam leer mu tiim ni ñëpp tiime di ca xewlu loolu nag daf ni wan rek ni waxtu wu ci nekk war na noo bàyyi xel bu baax a baax bokk yi nga xamante ni ni ñoo dem te fële doon na barab boo xamante ni nii li wérte wóor mooy ku xëy yenn yendu jëfam baa nga gontu fanaani réccu nga niñ ko xalaate nii demewut noonu te ku sëgg ci téere yi yër dégg li boroom xam-xam yi wax rawatina kii nga xamante ni moom lañ suñ borom booleel muy Cheikhul Khadim danañ xam bu baax a baax ni fële loo ko waajal doyut loo ko waajal doyut waaw ndax dara dara dara du fa doy te la tax suñ borom réservé koom mu ni ñumb noonu daanaka kenn xamu ci dara lu dul ni ay gént lañ la cay nettali ak léeg-léeg ay riwaayaat yoo xamante ni ni bëriwul loola dafay wan rek complication bu am foofu boo xamante ni mat naa bàyyi xel te sëñ Tuubaa bu waxee mat naa bàyyi xel li wax rawatina nag su giñee te tallaahi la wax giñ naa ci yàlla ni lay sa yan faaxu sax su xadaa inda xulooli ramsi xayru xuda nit buñ ko dugalee ci biir bàmmeel Sëñ Tuubaa dara du la fa jariñ lu dul ak jub ak jub nag fii lañ koy sàkkoo fii rek la nga lañ koy sàkkoo de su ko lijjantee ci biir bàmmeel fii lañ koy sàkkoo te rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururun yaati Sëñ Tuubaa nee na képp ku yaakaar àjjana te nangu jaamu yàlla sa yaakaar dana tas àjjana benn buur la am te ku ko jaamu doo ci dugg benn buur la am te ku ko jaamu doo ci dugg yàlla du bàyyi fàllu sëñ Tuubaa dub taalibeem loolu murit yëpp war nañ koo bàyyi xel te gi murit nag liñ ñu gëm mooy bu ëllëgee yàlla day taxaw ne bu waxee sëñ bi ni ko déedéet lii nangam ak nangam ak ànd saa mbooloo jaar leen fii yoon wi ñuy yóbbu àjjana sëñ Tuubaa teg nanu ci te mooy yoonu jaamu yàlla képp ku ko sàggane sa bopp nga ko def sëñ bi moom gént gis ko fii yombul te nit gént gis ko fii gën jafe ëllëg yomal xëy am gis ko noonu lay gën a jafe ndax wóor na ne ne moom yombut a dem ndax lim ci jaamu yàlla wóor na leen la fam nekk neexut a dem fii nu new itam xawma lu ko fi indi ndax li nu def ba nekk fi moom Sëñ Tuubaa defu kon sunu gisee war na joxe ay xalaat bu baax a baax ci nan la ñuy def ba bu ëllëgee nu mën a gis Sëñ Tuubaa ku jàppante ngay tëdd nelaw gis ko nag falilaahi alhamdu yoon waa ngoog buñ ci àggee da nga xam man naa ne walla mënta ne ndax murit yi moom looleen wax ci luy jafe yu mel noonu yu leen neexul ñu dal ci sa kaw gëmul dara du ab taalibe daa mel ni moom moom àjjana sawar rek lay waxtaane waaye la sëñ sooy bu mbàkkee daan wax rek nee na adduna daal daa mel ni marax ñu jox la mbalaan ni la ëppal yow mi ëpp doon ndax dañ ne la bu ci gunóor tàbbi neena yow mi ëpp moom doo noppalu waaye gunóor bu dëgër bopp bataanu ci biir sëb bi nag boppam la koy def kii ëpp nag mooy sëyiñ bi rek mooy nangam baaxut moytu leen ko def leen nangam ak nangam bàyyi leen nangam bàyyi leen nangam koo xamante ne nii nag loolu concerné wu la ba lu neex ngay doxee falilay lam moom mu ngi ci suñ kanam kon mat naa bàyyi xel bu baax kon jataay yi jataay yu am solo la waaye nag faaw ñu téye ko te am ci yitte ndax lépp loo fent di ko jaamoo yàlla seytaane dana ci dugal loxoom yàqu noonu la seytaane baaxoo ak ñun lépp loo xamante ne ni fent nan ko di ko jaamoo yàlla seytaane dana ci dugal loxoom ba yàlla mañ ca doon tudd suñ ko doon xaymaati pour cent du ko ci am ndax daje yi yëpp duñ koy formé mooy dañuy dañuy fàttaliku suñ maam ya ñaanal leen waxtaane suñu bopp waaye buñ ñëwee ca daje yi ba ñibbi ngay xam ba xam daje bi am na njëriñ wala amul njëriñ mboolem koo ci dégg mu ñëwoon ca daje ba di commentaire daje ba neex na boo ko dégloo daan la togg yi aw na yoon boisson ba doy na ndox mu sedd ma nangam ak nangam loolu nag su fekkee moo tax ñuy daje moom jóge kenn sa kër di ñëw ndax loolu moom du dara xéewal gu suñu borom gi yaatu na yaatu boo xamante ne nii lañ bàyyi ci biir kër yi moo tax fopp li ñu am ci daje yi waaye kon daje yi li mu waroon a jur mooy yitte ju kawe lañu waroon a jural li mu waroon a jur mooy pas-pas bu dëgër lañu waroon a li mu waroon jur mooy mag ña doon suñ royukaay ñu jàqar bi seen jikko ya teg ko ci kaw taabal kenn ku ci nekk yóbbaale ci dara ngir boo demee commencé ko roy loolu moo doon waroon a doon suñu yitte loolu nag mooy dafa am bis mag ñi di waxtaane Cheikh Ibrahima Fall akum jàmbaaram ba ñuy wax sëñ Bay Fallou Ndiaye dugg ca wax ja lam ca duggee daf leen wax ni leen ni course boo fekkiwut mënoo caa jël pee ñu ni waaw mu ni leen waaye course bii Babacar fekkee bëggu ci deuxième ñu ni waaw mu ni leen Cheikh Ibrahima Fall bu ma ko fi fekkoon ñu ni waaw mu ni pën bari waaye du ma raw loolu nag nun ñëpp noo ko war a bàyyi xel mooy bu nuy nettali mag ñi waxuñu ñu rawante ak mag ña ndax ñoom seen course jàll na waaye course bii nu fekke noonu kenn ku ci nekk ban rôle nga ci waral jouer ba bu ëllëgee nga bokk ci mag ñi ñuy waxtaane ndax fii barab la boo xamante ne ni bokk na ci barab bi diine yi bokk na ci bara bi alxuraan yi bokk na ci barab yi nga xamante ne ni ñi ko dëkke woon yàlla rek moo leen fi bàyyi woon wa anna haza sira haza siraati mustaqiman fattabiuhu moo taxoon ñu tekki seen tànk man nañ cee tudd suñu wàjjam yi nga xamante ni moom la ñuy dàkkantal dëkk bi mu wóor nañ la jaamub yàlla la bu nangu ak njaam ab jullit la itam bu rafetal ak jullitam taalibeeb sëñ Tuubaa la bu ko doyloo te gëm ko nit ku yéene ñëpp jàmm la mu wóor nañ la nit ku woyof la woon mu wóor nañ la itam nit ku mën muñ la mu wóor nañ la nit ku yaatu la mu wóor nañ la ab tab la ku lewet la mu wóor nañ la as gor la su gore ku dégg ndigal la ndax fa ko suñ borom joxoñoon foofa la teg ay tànk te dara jëlewu ko loolu moo tax histoire des di ko waxtaane jumtukaay yooyu yu mag ñu yoroon nag lañ ame ca liggéey ba moom lañ yóbbu waaye juntukaay yaa ngi ñu bàyyi fi jumtukaay mi ngi ñu bàyyi fi woyof mën a muñ yaatu tabe lewet gore dégg ndigal juntukaay yii la mag ñu yoroon di ko liggéey ba am li ñu am jumtukaay yóbbuwuñ ko fenn wa amaa ma yan faxo naas fa yam ko su fil ard lañ ame ca liggéey ba nag yóbbu nañ ndax loolu lañ ci amee loolu seenub liggéey waaye jumtukaay yaa ngi fi ndax li tax nga xam ne barab bi barabu diine la mooy sëñ mi fi ñëw sëñ Tuubaa moom du n'importe kii lay fekki koo dégg ñu ne la sëñ Tuubaa jóg na dox ak tànkam dem fekki ko booy moom wóor na la denc suñu borom a nga boo ko xamee ak boo ko xamul ab jëndeer na ka ne ca biir néeg ba du ko xam ña ca bitti ñoo koy gis waaye mag ñi moom suñu borom dëxañ na ci seen biir loo xamante ne ni ëllëg yomal xiyaam lay feeñ bari na ñoo xam ne parasol buñ lem la ëllëg rek lay firee waaye fii moom dee su ko fi xam rawatina nag barab boo xam Sëñ Tuubaa ñëw na fa ay yoon ñetti yoon du ay caaxaan ndax li tax ngay xam ne duy caaxaan mooy Sëñ daa wax ni lam an ko maa lam yafidi musuma jublu lu amul njariñ waxuma def lu amul njariñ damay jublu lu amul njariñ mosu ko def comme fu mu yëkkati jéego mi dox jëm fa foofa dencub suñu borom ma réew mi du sëñ bi di feeñ du réewum kéefar ay jullit a fi yu nangoo jaamu yàlla yu mën alxuraan te nangu koo sellal xëy na am na ñeneen ñu newoon ci laneen am na ñeneen ñoo xamante ni fa leen suñu borom joxoñoon foofa lañ teg seen tànk barab yooyu mooy barab yi sëñ Tuubaa doon wër moo tax ma ni sëñ Tuubaa bu ma ko doon misaal dama naan conteneur bu jóge bitim réew la waaye mag ñi seeni i colis da caa nekk kenn ku ne sa colis da caa ne ñu bind sa ci tur coow li ñooñu indi wuñ ko parce que boo ñëwee ñu jox li sa cër nga dellu waaye ñi xam ni conteneur bi am na njëriñ te seen dara néewu ci ñooñu ñoo indi coow li département bépp ñoo ñoo ko indi mag ñi foofu yi lañ ne woon ndax fu sëñ bi def fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan akuk jaamu yàllaam kuy wër barab da nga xam ne barab ba moom barab bu gën a màgg barab boobu boo ko doon wër ci biir réew mi doo ko am barab buñ fiy wormaal dañ naan ba fa Sëñ Tuubaa ñëwee am na yoo xam ne dafaa yendu dem am na xam ne dafaa jaar julli dem am na foo xamante ni nii am na fa ay ay ay weer am foo xam ne am na fa ay fan sëñ bi moom sabaaru dugub la foo ko sëpp mu suut kon kay li ci ne mooy waa barab bi ndax xam nañ barab bi wala xamuñu barab bi ndax ni téye barab bi noonu lañ ko war a téye wala téye wuñ ko noonu loolu ñu seq barab ba ñooy toog waxtaane ko xool valeur bi ñam foofu da sëñ Ahmadou du ma dox sax waaye ku ñuy wax soxna Ndang Mbay maam sëñ Abdou Khari Dieng moo ko fi daan fóotal di ko toggalam doon jëfandikoo waaw leer na loo xamante ni moo ko daan fóotal daan ko defar li muy jëfandikoo mu nekk ci biir néeg suñu wàjjë di jàppe ci kàdd ga di jullee ji ci armeel ya loolu leer na diggante yi boobu foofii mu daan jaar tànkam yi li baagante nit amut lu ko gën a rëy ci kaw suuf valeur bu ko gën a rëy te li tax ma wax ko mooy dafa am ci nit yàlla yi koo xamante ni ne daam ku faatu ñu jullee ko rob ko ci armeel yi ca guddi am ci nit yàlla yi ku ko gis ci gént ñu teg ko ci njoowaanu urus di ko joow nee na ci biir gént gi mu laaj ko loo defal yàlla ba mu fayee la lii nee na néew boobu wax ko ni ko man de xawma lu ma ko defal waaye malaaka yi ma doon gàttandu di ma teg ci kaw njoowaan gi nee nañ ma bi ma faatoo bañ may jullee sàppe sa daa am ku ca taxawoon koo xam ne sériyam sol dañ koo daax sér yooyu ñu daax am na ci benn morso boo xam ne ku am ngërëmal yàlla moo sol mbubb ma ba mu xar mu sànni ko waaye form morso boobu mbubb ma seet morso ba ca baax mu daax ko ci mbubbam ñaanu kooku lañ nangu ndax barkeb morso bi nekk ci kaw yërëm yooyu nga xool suñu borom ni mu xarala nu muy defee nga xam ne nitu yàlla am mbubbam ba sol ko parce que bari nit ñu am martaba yoo xamante ne ni seen martaba yooyu xamuñu ko yàlla da koo lëm wala buñ ko xamee suñu borom waxloowu leen ko loolu suñ wàjj ci la bokk nga gis ni kooku mbub moo mais mu soloon ba mu xar mu sànni ko man ma for mbub ma. sant bu baax sëñ Modou moom mooy wax bu baax yi. sant baax yaa ngi dàgg bu baax. jërëjëf yàlla gudd. amiin amiin ndax di ko dégg yaa ngi eh, jot li ñooñu yaa ngi leen di dàgg. jërëjëf yàlla loolu mat naa bàyyi xel. lamba leen ko addee. mbooloo mi làmba leen ko ëddee làmba leen ko ëddee sëñ Tuubaa mi nu fi dajale làmba leen ko ëddee bu kenn xeeb dara jóg leen. jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf lépp lépp mat na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yal yàlla fay yow tabaarkalla jërëjëf. kon yooyu dafa mat bàyyi xel ci. ay taxawaay ñu gis ni moom rek jërëjëf dëkku fa woon amoon na ñum dëkkal amoon na itam ñoo xamante ni ñoo ko jàppale ñu ay bokki deretam di ay bokki laqrabam ñooñu ñëpp radiyallahu anhum wa radu anhu la sëñ Blaat doon wax rek ña jëkk xëy ca tool ba ak ña toog ba midi ñu ñëw ak ñu toog ba añ bi sotti ñu ànd ak añ bi ñëw nee na ñoom ñëpp radiyallahu anhum su añ bi taajee ñëppay sukk loolu taxawaay la boo xamante ne ni mat naa fàtte mat naa fàttali bu baax a baax mooy su bi mu fi dëkkee sunu maam yi nga xamante ni ñoo laxasaayu déglu gis ni sëy wàjjëm mii ci aw yoon laaw ñu takk seen i ndigg ànd ak moom ñooñee fu fu mu yendu fa lañ yendu fu mu fanaan fa lañ fanaan te loolu mooy ak bokk te li tax nga xam ni loolu am na njariñ dafa am bis sëñ Mandumbe daa bay ba mbay ma jeex jërëjëf ba mbay ma jeexee mu teg ko ne jeexaat tool ya njeexaat ma bari lool mu fob njeexaat ma képp jëkk ko yóbbu waaye mu wax ndaw la ni ko boo demee neel Sëñ sama samam njeexaat kotta mbay mi ñëwagul Sëñ Tuubaa day ku naqaree waxal te amul dégg Sëñ Tuubaa ne leen bu ngeen demee nee leen ma ndumbe du juróomi baaraamam yooyee kott juróomi baaraam yi ma ndumbe dong mënu faa indi lu toll noonu mooy kon ñam àndaloon ca gannaaw ñooñu seenub liggéey moo tax koy wax ni tund wi ñi nga xamante ni ñoom la sëñ Wajja àndaloon di liggéeyal yàlla ñooña fa leen suñ borom di fayee ñoom ñëpp la ndax dëkk bi lu ci mësa a liggéey sëñ Tuubaa la ko yor yoonu njaareem sëñ Balla Kan mi daan baagante mujj na sëñ bi xàmmee ko ndax waaye bien bi yooyu yëpp fi mu ne dafa di mat di bàyyi xel bu baax a baax mooy nettali cosaan nettali histoire dafay tax nun nu takkaat sundi gi gën a laxasaayu xam ni am nañ loo xamante mënuluñ ko suñ bopp te dañu ko fàggul mooy mag ñi noonu ko fàgguloon démb muy fexe bañ bokk ci cosaanal yoon bokk ci ci ñu tàmbali nga xam ne yoon wi lu mën a dox ak fu dox bi mën a jëm yow da xam ni ca reen ya ca buut ya nga bokk loolu nag dafa am taxawaay boo mën a taxaw taxawaay bi ngay taxaw mooy ëllëg ki si biir foo mën a ne doon royukaay loola rek lu jur ndax sëriñ bi lu suñ borom tànnal ay àndandoo wali xaada ahbaban bihim usirun nuska suñ borom mooma tonnal ay soppe yoo xam ne ci lay wane sa saytuwaat barab bi ak dundal ko bokk na nag ci li koy def mooy daje yu mel nii fexe ba mbooleem ñi ci cosaanoo te bokk ci ngeen regroupé leen ndax mag ñi takkaloon nañ ñu aw say woo xamante ne nii say bi wërta ta tas te mooy fexe woon nañ ba bokk gi ñu nas ko nasin woo xamante ne ni dara mënu ko tas takkoon nañ koy takk dëgër woo xamante takkoon ya du dagg loolu nun war nañ koo bàyyi xel ah, bu baax moo tax may wax ni giliñ la ko soññee gannaaw la ko jóge rétroviseur bi ko tubaab di def ci waxtu bëgg lu rafet taxul daa bëgg a gis la ca gannaaw noonu mag ñi ñooy suñu rétroviseur gees soo mag ñi nag xoolaat suñu bopp danaan am kersa ndax mag ñi nu gën fopp gën nu ay jikko te seen deret lañ yor kon dafa mel ni dañ leen a umpule seen ngor ak seen diine ak seen jom ak seenu xajo ak seenu nangoo ànd ak seenu jàppalante ak seenu suturalante jamono ji raar na ci lool wolof nag buy wax ak yow day mel ni kuy kañu ndax danaa la fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp teppal man su ma ko déggee damay tiit wax dëgg yàlla damay tiit ak jaaxle it lay am ndax lan mooy tepp teppal fojul aw mar raxasut bool day tilimali sér te ci ngiis la jëm loolu mooy lu baax day dellu gannaaw waaye fu ndox daan taa nëgëni boo demee danga faa war a dangaa war a xuus ndax menn mag a fi ne woon ñu di ko tudd tey man ngaa làmb junni ñoo xam ne bu mag moom amuloon duñ am suñ demee ba bay ba mag mën ñu naan dafa réer noonu ananoo suñuy jikko anamu te crise de valeur bi nu dal bàyyiwuñ ko xel crise économique rek la ñuy jàmbat mooy kenn ku nekk ci ñun jàpp nga ni fii nga toll waroon nga koo weesu mooy waroon na maa tabax kër wala waroon na maa am mu oto wala waroon na ma am air plus nangam yooyu rek la ñuy jàmbat mais suñu valeur yi nga xamante ni mi ngi dellu gannaaw yooyu bàyyiwuñ ko xel te suñ jikko yaa ngi dellu gannaaw bu baax a baax benn mooy nangootunoo ànd nangootunoo dimbalante yooyu ma koo dénk mu lekk koo déyanteel mu senn noonu fan lañ jëm ndax suñu waajur yi noonu lañ doon dundee déedéet waajur yi day bokkoon nañ xalaat bokk yéene bokk li ñoom ndax bari na ñuy bay ci suuf si fii ñoo xam ne suñu wajaa leen daggal bu leen doon boot duñ dëkka ak moom su leen soxlaa lool ne itam dëkk ga jafe lool waaye soxlaa lu leen dara ba pare lim leen ëpp leen nangu na koo bokk ak ñoom moo tax wa ni bokk gu ne borom bind na ca koo xamante ne la ko suñ borom wërsëgal su ko nangoo bokk ak i bokkam tumuranke mën naa faa jeex te yàlla waxul ne la dimbali sa mbokk mi néew doole wa aati sal xurba jox ko wàllam ci li ma la jox koo xam ne ak super rent na la buñ la taajee ak mën a dañ laa loo waaye boo ko dencee mu forom yàqu doo ko jariñoo mag ñi lool lool lañu xamoon moo tax liñ doon am ñu doon ko partagé waaw waaw waaw waaw incha allah kon ma tënk kon mag ñi amoon nañ kilifa te nangu woon nañ kilifte te yàlla rek tax loolu bàyyi woon nañ ko xel bu baax te doon ko dund loola nun nan ko delloo siwaat nangu woon nañoo dimbalante itam mooy suñ tasaaroo gi nga xamante ni moom la ñu tasaaroo nañ ko teg ci taabal ji waxtaane ko ñi war a ànd nañ ànd man toujours damay damay am ak jaaxle léeg-léeg da ngay dem ci kër fekk fa ñoo xamante ni ñoo bokk benn baay <laughs> wala ñoo bokk ndey ak baay waaye nanguwu ñoo ànd dañuy làng rek luwaa ba ci biir kër ga mooy ku sa soxna ay yaa koy jox dépence loolu du ànd la doon ànd mooy ñu boole ko mu doon benn ñu teg ko ci barab jigéen ñi mën nañoo bañ a xam fu dépense bu jóge ak ku ci ëppale ci waa kër gi parce que jigéen bu xasee xam ne borom këram a yanu kër gi ña ci des du leen jaaral la yoo dootu ñu ànd da gis it ki man teex ci ay doomam yóbbu ca daara ja mu jàngi man mi mënut ñu bàyyi samay doom ci daara ji nga xamante ni nii ñaari fan ñu jàngi bu ko ñetteel ñu dàq leen gis nga sama doom yooyu bis bu ma faatoo bàyyi leen yow doo leen yilif parce que jëriñoo leen dara bu ko defee ñu naan ko ni dañoo nangootul ku leen yilif fekk yaa leen taxawul moo tax ma jàpp ni war na noo xoolaat suñu biir kër yi organisé waat ko nangoo bokk te nangoo suturalante ngir jëm yàlla suñ ko defee suñ borom na noonu dimbal nu waxtaanaat ci biir bokk gi muy association yi ñuy tabax na ci social di am am na loo xam ne mbokk mënu ko dimbali ma ju te kenn dimbaliwul ak put wanaa suul lu ko gën a wex kon station bi ñoom ñoo war di xool ci biir bopp yi ñi ci néew doole te aaja ndimbal ñu leen di taxaw mag ñi loolu dong lañ fi daan nekkee mag ñi léeg-léeg ñu daan jël nit tëdd ba guddi ñu jël ko yóbbu ko ci barab sàngam ba mu jaboot fa mooy dañoo xamoon ni diw mi ku taxawut du am soxna waaye léegi boo nee bëgg naa soxna sa yaayi bopp ji moo lay jëkk wax loo yor bu ma ruusloo mënoo cee dugg te yoroo boobu taxawaay amatul kilifteef gi itam wàññiku na mooy kenn yilifatul kenn koo taseel mën na laa jox kàddoom te lim la wax mooy moo tax itam bi loolu amee suñu borom xañ na nu kilifteef suñu njabootu bopp yi kenn ku ci ñemee fi mu doon ni maye sa doom ci biir jataay bi dem waajal ko musée yi amul ku ci bëgg sa doom danga naa ko ñëwal ba ca kër ga mu gis la mooy da ngay dégager sa te doom ji toog nga ni ko kii yaa ko tax a jóg bu nee waaw waaw la tudd bu nee nga ni ko ah, man dem ba mooy dem kon baat amatul yooyu yëpp du ñu war a waxtaanee waat taxawale itam ay ay ay barab bi jàngukaay parce que suñ dëkk yi li ko tas mooy ku jekk tuxu ku jekk tuxu ku jekk tuxu ku jekk moo tax barab yi mel nii mu mel waaye bu fekkoon ni ku jekk toog ku jekk toog ñi néew doole danañ fi mën a ne ndax danañ am ku leen dimbali waaye dañoo tàmm ku jekk tuxu bu ko defee ñi néew doole itam dañuy sempi seen i néeg ndax gisatuñ fi ku leen wettili gisatuñ fi ku leen jàppale te duñ fi des di ñoom it ñu dem ca buux buux lool moo tax kon nañu wut ay daara dajale fi sunu njaboot di leen jàngalal suñu bopp di leen yar dana tax duñ jëggaani jikko te dana tax jikko yi ñu doon newoon ci maam yi du tasaaroo waaye nag bu fekkee loolu amul yeneen jafe-jafe rek mooy am noo ngi jéggalu bu baax a baax yal suñu borom boole dimbali te defal nu tawfiq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.